ah dafa bëgg xam rek. gën mais non mais xo déggoo ma la wax. dafa bëgg a impliqué si si si si liggéeyu Sénégal. déglu neexul neexul wax neexul déglu c'est du populisme. c'est que ñun ñun ñun ñoo dul nangu critique. Hmm. mais c'est du populisme. ndax defoo fa defoo fa dara. mo mo tax def fa dara non le pré déggoo ma la wax. le président def fa dara ma fa tabé moo tax ñu ngi koy expliquer ni xoolal voyage yi muy def ni hmm. Gambie d'accord na hmm. Mauritanie d' accord naa. Mali d' accord naa. Mm. mais Sera la woon. Mm. ban doo am sax compte rendu. le président a a xaw ma lan la coopération bilatérale ak Sera la woon ba yow beneen ñun ak la woon yow yow yow yow loolu mooy itam mbir. coopérative façon de parler. Euh, euh, coopération bilatérale lii fi mu ne nii xam nga ni mu taxawee ñu ngi koy. expliqué waaw déglu mooy expliqué la kii bu ñu ko expliqué bi ñu ko bi mu taalee avion am la fàttee lu ñu ko expliqué. Ah. dafay defar pétrole kii. waaye dafa bëgg comprendre. mais ministre du pétrole bu demoon ñu wax ko. mu ñëw rendre ko compte. mu ñëw rendre ko compte. c'est pas pour yéen déggoo lu wax. Hmm. rationaliser les nga gars yi dañuy wax rationaliser dépense rek. Hmm. mais rationaliser dépense si yow lay commencer déggoo lu ma la. Hmm. le jalonnement coûte excessivement cher. jalonnement moy xam nga lan président jogé na fi ba fu muy yegg policier ak gendarme ñoy jël ay essence def ni talibi lool ça a un coût su doon ministre moy dem ñaari auto ñokoy top topp. top koy topp. ba nga tubaab. Mm-hmm. Ah? et puis mom bu joggé jour bobu audience amul. Mm-hmm. dégg nga ba bu demee audience amul. ah bu ñibissé mën na am audience. wa mais est-ce que mom il a un temps élastique. Mm. déedéet. Mm. dégg lu ma wax y a des urgences. moo tax ma ne la xëy na dafa japp ne li urgence la. waaye dégg lu la ma jox la ben instant. waaw xam nga conseil des ministres semaine bee passé amul. wa amul wa waaw hmm? mhm. legi nga joge fi dem Sangomar mhm. journée bobu boobu Hmm. demoon nga Paris def fa ñaatu 3 4 jours Dé nga juba Té yow ko recevoirul mënul mhm. am résultat Hmm. dama nga laaj ministre ndax ñuy gis président le président Senghor donné chaque à chaque ministre 2 heures de temps par semaine par semaine pour waxtaan ak ñoom il y a l'audience hebdomadaire hmm. avec le président ministre de la jeunesse nous dugg avec le président Nous toog deux heures de temps séance de travail. Hmm. pour régler tous les problèmes de la jeunesse. bu gagnez suba le ministre après am la réunion hebdomadaire avec le premier ministre. voilà hmm. avons dem conseil des ministres dama la ministre nous ndax gis président. sans compter la diplomatie.

Demande, defi le moo doon gën dem def pour temps dans 5 ans mais 5 jours comprendre la parce que parce que le temps ne t'attend pas. Mm-hmm. nga pare et le temps perdu ne se rattrape jamais. nga alors qu'est-ce que tu as fait. quel est mm-hmm. ton bilan. Mm-hmm. nga ne à Sangomar. Wa. en tout cas daal li ci bi nañ ko gaaw exploité commencé jaay ndax ñu mën se <laughs> gis ñu. yow pétrole boo xam moomoo ko da dem société jàmbur muy defar daal la nga yow ko waa dal daal yi ñu koy defaree mën na la léegi lii. non le président du dem si yooyu. le président c'est déplacement dafa war nekk déplacement bu utile. wala mu yónnee. wala mu yónnee. Hmm. yàlla baax na en tout nañ ko waxtaanee daal ba jubóo conseil la xam naa ne. Euh,